acca assalamualaikum mbokku internet yi safo di setan sen site internet Ngoy TV ñu ngi len di ziar di leen wat bu baaxa baaxa baax a nak ñu fas waxtaan ak yeen ci gala bobu nga suñu père Gaston suñu grand frère Makan Beng taxawal nañ ko ak Abdul Lahat muy gala bo xam dañ ci bolé nag ay xélé yu am kala Tala ay xele yi itam yu am jom ay xele yitam yoo xam ne wane nañu seen bopp ci làmb muy diggante ki nga xamante ni moo di caatu yaraax ngeen koy gis noonu ci écran bi mu doon daanaan doon champion day ñëw rek ci présentation bi après ñu doog a ñëw ci seen euh, palmarès ak ki nga xamante nii moo di njaaytin ngeen koy seen noonu moom itam muy xele boo xamante nii mention spéciale waa Bawol am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax ñu jóge foofu itam dugg Tëngéej fekk fekk nga xamante ni moo di gamu Gueye muy xele boo xamante ni vraiment ah waa Tëngéej bàyyi nañ ko xel muy xele lebu boo xamante ni mention spéciale ndaanaan la day xeex day bëre acca ñu jóge foofu itam wacc itam ci dëkku lebu boo xamante ni kenn du wax fii nii lebu Sénégal te boole woo ci yoof muy caatu yoof moom itam di ndaanaan di xele boo xamante ni serofoot mention spéciale vraiment caatu yof bu ñuy wax dañ moom dañu neen mention spéciale xamuñu ko nag dañoo gis ay kombaam rek mais booy xool ay qualité am kombaam bi mu mujjee bere nii mention spéciale quoi waaw bokk li muy def to mon nako to amna am na ci gëm-gëm ñu ñëw itam ci li nga xamante nii moo di palmarèsu mber yi ñu jëkko ci euh, commencé ko ci ki nga xam ne nii moo di caatu euh, euh, palmarèsam mu ngi nekk 11 combat 11 combat lañu wax né mom la def buñu joomé itam ngeen bal ñu waaw euh, euh dañu gis ka affiche bi rek euh, ci journal yi mom la ñu lire quoi combat yi nga xamné chatu yarax mom la def xamna dinañ ko len séti sax ñom ñep ken ku nek wax euh, moy lolu chatu yarax def na 11 combat 9 victoires des défaites waaw 9 victoires la am ak des défaites voilà kon caatu yaraax vraiment ndaanaan la ndax ku def de onze combats am ci deux défaites moom wax dëgg fa am neuf victoire ndaanaan nga te sampion nga vraiment ñëw ci ki nga xam ne moo di capaacoli bi muy doomu bawol bi rakku tafaatin bi muy ki nga xam ne moo di njaaytin njaaytin itam mu ngi def dix combats ah dix combats am neuf neuf victoire am benn défaite booy xool mook caatu yaraax Euh, xaw nañu méngoo foofu ci ay victoire ndax ku ne neuf victoire la am kii dafa am des défaites kii am benn défaite mais booy xool ñoom ñaar neexoon nañu. acca ñu ñëw ci ki nga xam ne moo di gamu géey Gamou Gueye euh, mujjee bëre ak soq voilà gamu géey mu ngi am moom itam 14 combats 14 combats la am am 11 victoire am 3 défaites. vraiment moom itam di ndaanaan di champion boo xam ne kenn du ko werante moom gamu géey ndax yàgg na ci lam nag waaw vraiment acca ñu ñëwaat ci ki nga xam ne moo di caatu yoof caatu yoof di palmarès am mu ngi doon 17 combats 17 combats la am am ci quinze victoires am des defet waaw muy xele boo xam ne Tyson 2 moo ko mujjee daan Tyson 2 kenn ku ne xam na ne Tyson 2 ndaanaan la champion la Tyson 2 bëri na ak guy gi kon bu daanee caatu yoof war na ko mën a daan wax dëgg fa la te boobu caatu yoof wane naa ne ndaanaan la wane na champion yi itam mais boo waree daanu moom dangay daanu ñu ñëw nag ci euh, tegal leen afisu mbër yi noonu ngeen koy xool di caatu yoof mooy favori d'accord mën na nekk ndax euh, li tax ñu ne mooy favori peut-être moo leen ëpp ay combat wala mu ëpp leen boog ay victoire waaw mu ëpp leen ay victoire ndax kii di Ndiaye mu ngi am neuf dix euh, kii euh, caatu yaraax am neuf kale am onze kon déjà ki am quinze com dix-sept combats des défaites quinze victoire kon mën nañu wax ne mën nañu ne mooy favori ci moo leen ëpp ay combat mooy favori itam ci moo leen ëpp ay victoire mais est-ce que tax na mu doon favori cent pour cent ndax nag daf ko bokk ak ay xel yoo xamante nii kenn ku nekk bëgg na dem ku mel ni njaaytin tey lu mu mën tey war na ko mën a def ci làmb ji nii bëgg jël premier mel ni caat mel ni caat yoof ak ki nga xam moo di gamu géey kenn ku nekk ci ñoom tey war nga mën a jaayante tey ndax gars yi bu leen fàtte de rang bi dafa seere tournoi bi tournoi bu serré la lii maa man maa leen ko wax kenn ku nekk nag ku faralee sa mber mën nga ne sama mber mooy mooy mooy mooy mooy fagori mais man moog gisuma ci fagori pour le moment waaw mën na nekk nag mais gisaguma ci favori bu tax ñuy wax fagori cent pour cent quoi waaw cent pour cent sax moom favori cent pour cent moom mënu ci am vraiment mais daal en tout cas xam naa ni xele yi moom ay xele yoo xamante ne nii yu waaj lañu yu pare lañu waaw ku mel ni Njaay ah ku mel ni Gamou Gueye ku mel ni Caatu Yaraax ku mel ni tey euh, caatu yoof euh, galaa bi nii képp ku ci ki génn force da nga yéeg dem ci gras yi ci kaw te képp ku ko jël Tyson de mën nga bëri ak moom ndax moo mujjee daan ki nga xam ni moo di euh, wax nañ ko léegi moo mujjee njaay daan ki nga xamante nii moo di caatu yoof waaw te Tyson de bëri na ak guy gi comme ni ma ko waxee léegi ndaanaan la champion la moom Tyson de xele boobu dina ñëw nag ci combat yi nga xamne ne nek suñu kanam di oma sen di tafatin oma bonlo Ama balde yoy yep inshallah re, euh, reg Bombardier ak ki nga xam ni modi euh pourquoi guygi ak ak fra pourquoi guygi ak Gridé pourquoi euh, fra ak ak ak Gridé hein Sa Thiès fra lan lan lan ñuy xaar hein ay loolu yëpp ay combat la combat yu neex ci saison bi sa Sa Thiès Gris 2 combat la dëgg la Sa moo daan Reug Reug gi Reug daan Gris ah mais ñoom ñaar war nañu mën a laalee moo gën quoi acca mu ngi noonu daal en tout cas lam ji essaay nii daal ubbeeku na te balaa moo gën a neex sax gara yi am combat nii bere ba ñu daanu daanu ñi daan daan euh, su boobaa day gën a ubbeeku te day gën a neex acca mu ngi nonu loolu lañ leen doon waxtaanal ci tournoir bi nga xamanteni ñoo Père Gasso def nako ak suñ grand frère Makan Beng ak suñ grand frère hat ndjay ak Père Maxime Bergane ñu leen di ñaanal yalla suñ borom rek lepp lu ngeen ci nam yalla leen ko yalla suñ borom defal ci barke yonente bi barke Sewul khadim di leen bëgge bu baaxa baax nak naan Père Gasso yalla na nga wér ba dellusiwaat ci lam nima ma koy waxee saasu ne Père Gasso la ci lam ju mënul daanu bankas la ci lam jo xamne du da warul sax warul sax langaamu boy daanu Père Gaston dafa wara ñew ci lamb def ci bok nako ko ñëpp ñaanal jafe-jafe yëpp tegeeku mu ñew del ci lam ndax dafa bok ci lam ndax tey lam ju exé fi tey ak grâce ka Père Gaston kon ñu ngi koy bëggé di ko ñaanal bu baaxa baaxa baax ci kaddu gi nga am nañ ko ñu ko ci ñaanal bu baaxa baax di ñaan itam réew mi yalla suñu borom def ci barke neente bi bëggé na ñëpp sant nyep ziar nyep jaajeuf